dooree ko Modou ak Fall Paradise jombul dinañu ni dàngal ab photom ngir ñu xam ko Assane démb daal ñu ni dañ koo jàpp bi ma envoyé affaire bi nag ci laa ni lii daal ndoxe na lool defe naa Sénégal tollatul foofu comme ni nga waxoon ci jàpp ko gaa yi ñu fi mujjoon jàpp ndax solo tiseet bind ci pare na leen Sonko warees na cee mën a jàpp nit bi ñu xëyee wéyal gëstu bi daal di ko yow Fall na nañu dañ ko yàgg wër waa xam naa Modou dinañu illustrer photom pour ñu xam kooku di Fall Paradise waa mi ngi noonu waa waa ju baax la sunu sunu xarit la et puis sunu mbokk la ndax. yoo xam nga ko xam naa ko sunu mbokk la it ndax sunu maam yi ñoo àndoon sa Gébu Fall. Mm-hmm. mu bokkoon ci taalibe Cheikh Ibra yu mag ya mm, cosaanam Gébu Fall la mais bu ñëwee fii nekk jàmm gën gii wax dëgg yàlla di sunu waa ñu bokk yit ay groupe WhatsApp. Mm-hmm. ndax loolu duñ ko mënuñu koo bañ ndax réew mi dañuy dem ba bu ñu arrêté nit sax nga gis groupe whatsapp bu mu bokk nga gis gars yi di quitté. waaw di quitté ngir bañ. xam nga gars yi léeg-léeg bu ñu la arrêté dañuy jël sa téléphone xool groupe whatsapp yi lan ngay wax ak ña fay wax ñan la ak at me yeeg yooyu. Ah voilà léegi nag man moom loolu nee naa ne du ma si fekk PV sax du ko ko supprimer ndax lépp lu may wax ak nit day leer. Mhm. waaw bu ñu déggee ñu ne arrêté nañ nit bu ñu demee bu ñu duggee sama PV lañ fay fekk jàmm rek lay doon ndax lépp lu may wax nit lu koy jariñ rek lay doon. Euh, Fall nag dañ koy ñaanal rek ñu féexal ko ndax yaakaar naa ne looloot bu fekkee ne arrêté nañ ko si ndax nee nañ dafa leen ngeen parrainé Ousmane Sonko bind si te seetam kaa leen parrainé. bi ko. bu dee loolu rek lañ ko arrêté buñ ko digloo nañ ko xamal ne ko lii nga def nii loi da koy tere. Ah, bu koy tere. Mhm. ni ko bu mu amati. bu fekkee ne dañ ko yàgg wërit lañ ko doon wëre danañ ko wax ni ko lii lañ la doon wëree ndax képp ku bokk Pastef yaboo nga xam ne yàgg a wër gi moom yaa ngi si biir mën nga am ñu rëcc mën naa am ñu bàyyi la mën naa am ñu ñàpp laa bàyyi waaye si biir looloot yàgg wër googu ñu bëgg a installé si bopp nit ñeet day mel ne yoon dafa amut ci réew mi hmm. dafa mel ne suñu sécurité amatut ndax nit ki mënut dëkk si réew mi yaroo si réew mi màgg si réew mi am carte d'identité nationale di liggéey ci réew mi ñu soxla ko ay 3 mois comme nañ jàppee référé xaw ma euh, sóora sóora niñ ko ah, jàppee ñuy dafa demoon visite ñu gis ko jàpp ko ni ko yow dañu laa yàgg a wër mu nekk Sénégal ñu yàgg ko wër te mënuñu koo jàpp looloo su fekkee ne yàgg a wër gi mën nañ see d'accord ni kii kat li ko jàppee du lee mais dañ ko yàgg a wër wane ni kon sécurité bi des na ah, ndax normalement koo xamante ni def na lu dul yoon balaa une heure war nañ ko mën a jàpp fu mu nekk dëgg mais nag nit ki def lu dul yoon nga bàyyi ko trois mois doog ko jàpp ni ko dañ laa yàgg a wër wax dëgg yàlla loolu ànduma ci d'accord joxe hélas Alaaji Fall Paradise la nee nañu dañ ko arrêté daal ngir ni daa bindoon nu ti set ni pare neen Sonko yorob rajo di ko wax ca kaw waaye nag am na xibaar yu ci mujjaat daal mooy dañ ko yàgg wër <laughs> ti seet ti seet lañ bind ne pare neen Sonko ñu jàpp ko ah. loolu de loolu moom reelu na quoi waaw dañ la yàgg wër it du du du du lan la defoon bañ koy loolu la war a wax quoi mm-hmm. war a wax ne kii dafa defoon nangam dañ koo tuumaal nangam waaye dañ lay yàgg wër mm-hmm. loolu moom du tontu kon defe naa ni est-ce que tontu yooyu tontu officiel la. Hmm. yu jóge ci police la voilà. même Sora la dañ laa yàgg a wër. Sora trois mois ñu ngi koy wër nee nañ ko. waaw ah, mais moom Sora mi jàpp waaw. Ah, trois mois ñu koy wër. Hmm, ah, lan lañ ko doon wëree quoi c'est que. parce que moom nee na bi ñu jot léegi nii te Assane woon ko fi. Hmm. nee na dem na ba moom mi ñu jàpp demoon na ba raar. bi mu xamee ni ñu koy wër demoon na ba raar jàmm gën. fréquenté tu fa parce que dañ ko doon wër. dañ ko waaye fan yi bi mu ñëwaatee parrainage bi commencé mu yor rajo di wër ci lañ ko jàpp Mm. léegi nag ndax ci manifestation yi lañ ko doon wëree wala ndax ndax ndax mm. daal war nañu wax léegi lañ ko doon wëree mm-hmm. parce que dañ lay yàgg a wër rek nit ki boo koy wër am na lu mu def ba tax ñu du ko wër mm-hmm. li mu def lan la ndax lu lié ak politique la wala nekkul lu lié ak politique mm-hmm. loolu peut-être ci kanam dana leer comme que jàpp nañ ko moom yaakaaruma ni bon jàpp nañ nit euh, ndax sol na ci seetu Ousmane Sonko wax ne pare ne leen Ousmane Sonko loolu euh, dafa ndoxeel comme ni nga expliqué. de mm-hmm. trop quoi. Mm-hmm. waaw parce Sénégal bon yaakaaruma ni nag toll nañu foofu. Mm-hmm. sol t-shirt Ousmane Sonko ñëw leen pare leen. te fi mu toll nii ci parrainage toll nit ñaa ngi yor seeni kii di wër. waaw di lijjanti pare. donc loolu moom kaw kaw ma ni bon peut loolu moo tax ñu jàpp ko. li ñu koy wëree nag ndax lu lié ak politique la wala nekkul lu lié ak politique. waaw loolu moo jërëjëf peut dinañ ñu ko leeral. ci kanam waaw voilà.